Père Aly maa ngi lay la siyaar. maa ngi fay di leen ñaanal jàmm yal na yàlla defal leen jàmm defal na ko defal ko mboolem mu jullit ak yéen asalaam. yan témoignage nga ñu mën a wax ci aji dem bi. aji dem daal lu looy mënti wax lu may baax ak rafet jukko ak mën a muñ depuis nu ne xale noo def suñu dafa suñu carrière bu ma fi toon mag tuuti si làmb ji waaye def suñu carrière di ànd guddeeg bëccëg ku am combat sax taxaw ba ne yàlla def suñu carrière jeex mosuñu werante mosuñu xuloo mosuñu kenn waxloo moom naqar muy man di Aliou Seydi moom ñu ñett daal yàlla nu boole woon nu am na woon su dem ak Daouda Fall ak Alioune Fall yàlla yërëm eh, jokkoo téléphone boo xam ne noo feebarandoo maa ngi moom noo feebarandoo noo entré entré ndoo hôpital eh, waaye teewul chaque jour nuy wootandi téléphone di téléphone di wootandi téléphone biir na soxnaam yi biir na njabootam yi heure bu ne la ma xëy mu woo ma téléphone defal nangam defal nangam lu mu xëy man tam ma ko téléphone defal nangam defal nangam ba tey rek sama soxnaa nga naan waa yow baa bëgg dem yaa ngi war a mu naan mu ngi attaaya mi ngi ñu ngi koy attaayaal yow nga ma ne nga ah, dem na de waaye daal ñu dem na moom eh, waaye xëy loolu moo tax yàlla yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na yàlla xaaral ak àjjana barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu daal lañ koy ñaanal moom. njaboot gi mu bàyyi ginnaaw loolu leen dénk. njaboot gi li nga dénk daal mooy sunu njaboot la. di yàlla nu ñuy ñaan si yàlla yal na yàlla barkeel leen yal na yàlla barkeel njaboot gi. yal na yàlla jàppale leen ba lépp lu ñu séntu ci ñoom yàlla def ko ndax Balla lu mu def njabootu jàmbur bu ko yàlla fay si njabootam kon incha allahu njabootam doon du sonn ndax adam yëpp si njabootu jàmbur la ko def. yor écrit yor lu ma téeméeri mbër guddeeg ba subaa ngoon muy daj ci ñoom lu ne ba yàlla jëlee ko fi tey kon incha allah yàlla dana fay dana fay njabootam dana barkeel njabootam am nañ ci yaakaar yàlla na ko yàlla def. jërëjëf ak yéen sallallahu alayhi wa sallam